yooyu di am moo tax li ngay muy neex sa biir xol te doo xam neexaay bi fan lay fan lay jóge fekk technique yu mel noonu moom la utiliser ci bind bokk na ci aussi bi bila richin ci wet gi mu tudda saxiyun bila mannin donc loolu la ñuy tuddee tasrian utiliser na ci lu bari am na aussi li tuddee ak takraar wal jinaas mooy euh, homonymie ak paronymie mooy dafay am ay son yoo xam ne da koy gis muy répété wu ci biir benn bayit bi kese par exemple xoolal Chine bi Chine ni mu koy répété quatre fois ci biir bayit bi kashafta du jaa bi kashafta du jaa bi wa kulli xamaytahu bi xifdi di mahma shtaka mushtakin ashka gis nga donc Chine bi ñëw na quatre fois ci benn bayit bi donc day dégg rek jàngkat bi di ko jàng muy neex ci yow kashafta du jaa bi wa kulli xamaytahu بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى donc day répété benn son mu fexe muy répété wu ay yoon xaaf bi rep kaaf répété na ko quatre fois ci benn bay kitaabun karimun min karimin mukarrimin كفيت به quatre fois ci benn bayit ah kitaabun karimun min karimin mukarrimin kufiitu bihil aada wa danba wa shirka aussi xaaf quatre fois ci xadamta bi taqdimil adi ya rasulana wa xustal ola ya nasiral xaqi bil xaqi donc ci niveau phonétique niveau phonétique daal bu extraordinaire moom la xasida bi am bi ma koy toog di jëkk a jàng ci biir kuréel yi ma daan jàngee xaw ma woon mu xaddamaat avant maa ngi toog ñu ngi kuréel ñu ngi jàng mais maa ngi sentir am maa ngi am lu may sentir mais maa ngi aussi remarque yi may wax ci laa ko maam ci biir jàng xasida laa koy def pour la première fois di seetlu mais xasida bi araf bii la ko bay bi araf bii la commencé moom la jeexee mais melokaan yii may liir ne même araf la ñuy commencé waaye what's going noonu ci laa ka notee ci sama agenda ne il faut ma am benn jotaay ak xasida bi bu yàtt pour comprendre yenn technique moom la sëriñ bi utiliser pour bind ko euh, booy topp jinaasaat yi nga xam ne moo am ci xasida bi jinaas mooy am son yoo xam ne da nga koy répété lu bari ci biir euh, xasida gi da ngay gis effort yu mag yi nga xam ne sëriñ bi doof ko doon def pour yëkkati niveau xasida gi pour mën a répondre aussi li nga xam ne moom la wax léegi ci yuxaatibu nii maa qiida lii bimdahannahu madihan ajiban mufhiman faa'iqar ra'yi wax ne li nga xam ne moom la ma suñu borom wommatal ci ay may ñooy wax ak man naan man taggal rasulullahi tagg gu yéeme goo xam ne dina jommal sax borom xel mu sell donc da gis effort yu mag yi nga xam ne def na ko ci loolu. mais ni xasida bi bëree ay jinaasaat noonu la baree li ñuy tuddee tibaax ak muqaabala tibaax muqaabala mooy nga utiliser nga tudd ñaari sens yu opposé tudd mbir tuddaat contraire bi ci kanamam li muy permettre mooy maanaa yi dañuy def tajaazub mooy day mel dañuy bëri dañuy xëccoo rôle bi muy joué aussi day tax maanaa bi di des ci niveau euh, ci xelu récepteur bi exemple yi ma yi mu ci tudd almayn alxaq ci benn bayit mooy caaxaan ak dëgg al amir an naahi kiy digle kiy tere asr al jahr li suufee ak li fés ishtara bi'tuhu jaay jënd al asl al far ah albarr albahr géej jéeri ruuxi jusmaani ruu sama yaram xuruuji duxuuli alfatx alratq donc dangay gis lu bari day utiliser ñaari termes yoo xam ne ay sens opposé lañu am mu indi leen ci benn bayit moom la ñuy tuddee tibaax ak ak muqaabala aussi role bu extraordinaire lay lay joué euh, day tax maanaa bi di des bu baax ci euh, zihnul mutalaqi euh, bu dee maajim yi mu utiliser maanaam ci luxal arabiyya mën nga ci gëstu gëstu gëstu gëstu ba xam sax nombre de termes yi Cheikh Ahmad Bamba di utiliser ci ay bindam nit dina àgg foofu ci ay gëstu waa nga xam ni nit dina wax benn bayit sax nga taxaw sañat dóor sa loxo ne Cheikh Ahmad Bamba waxu ko te doo dépendre sax ci maanaa yi may ci alphase yi mu utiliser parce que xam nga yan alphase lay utiliser loolu la ñuy tuddee lexique mooy yan term la doon utiliser bi muy bind xasida bi ñetti champ lexicaux laa ci sentir bi ci njëkk mooy mujam madixi xaas bi nabi champ lexical boo xam ne pour yonent bi la terme yëpp terme yonent bi la par exemple tudd na ci xalil habib bashir nazir nasik naqib raqib malaz mahin mujib mujab masih mudi malih masum murtada murtaja mustafa muxtaar xayrul xalq imaamul rusul khairul baraya sayyidul wara جامع الشملي ماحي الجهلي جالب الوقي ناصر الحق بالحق دونك بو خولي ترمي ييب اي توري يونت بي اك اي ملوكانم دوزيام شان ليكسيكال بي موي شان بو خاني بور يالا سونو بوروم لا اي توري يالا اك اي ملوكانم رب العرش زيل جودي والعفو الهي مولايا الرحمن الواحد القهار حفيظ مانع الهادي كريم مكرم المغني الواسع الباقي مغن نافع باق محيي هاد رب البرايا فاتق الرزق donc boo xoolee yooyu yëpp ay ay ay ay melokaani suñu borom la ak ay turam troisième champ lexical bi nag mooy champ boo xam ne moom la concerné moom Cheikh Ahmad Bamba ay mbiri boppam la ciy wax saf wii kulli nifaali ibqaa'i fawzi kalaami niyaati fi'li ilmi ruuxi jusmaani فؤادي حبي سعادتي كلامي كنزي جاهي عيوبي زلالي ظروفي كليتي يدي لساني حالي دونك اي ميري بوبام مي داي لول داي بيرميتر جيمم موم سيرين بي دا فا تيو بو باخ سي بير قصيده بي مي تيواي بوبو اوسي تيكي وول لي نيو تودي غطرسا موي فغ سا دن ولا وانا سا بوب ديريت لا موتاخ موي تود بوبام لو باري parce que dafay teewlu lu baree bari li ko suñu boroom defal ci ay xewal ak teraanga ak lim ko musal ci ay ci ay musiba looloo waral euh, saa yuy tudd boppam la plupart day day répété lu ñuy tuddee baaul istiaana mooy su su am naa nangam sax danaan ci baaxu yàlla laa amee wala ci barke bi mooy bi euh, ñu koy tuddee baaul istiaana daf koy tudd lu baree baree bari ci biir xasira bi léeg-léeg mu jël baaul istiaana bi rabt ko ci yàlla suñu borom. comme ci xarajtu bi fadlillahi mimma yuwabbixu gis nga xarajtu bi fadlillahi min kulli baatili xarajtu génn na mais bi fadlillahi ci mbaaxu yàlla laa génnee min kulli baatilin ci lépp luy caaxaan léeg-léeg mu jël baawul istiaana bi rabtu ko ci yonent bi nest pas comme ni ñëwee ci euh, euh, yaqiini ilaahi wa huwa kulliyati yuxyi bi jaahi rasulillahi man nahjuhu uxyi gisoo suñu boroom moo may moo may fegal lépp luy ñaawteef mais ci baaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg mu boole leen ko ñoom ñaar jël baawul istiaana bi rabt ko ci yàlla akub yonentaam comme ñim ñëwee ci xarajtu ma almaahi bi rabbi ay xarajtu bi rabbi ma almaahi xarajtu ma almaahi bi rabbi min al ada wala yantahi naxwi alladi yatabajjahu dinañ seetlu aussi ci biir xasida gi ne tawsif na li ñu tuddee ay azmina naxwiya mooy ci wàllu temps verbe yoo xamante ni dañ ko conjuguer au passé ay verbe yoo xamante ni yuñ conjuguer au présent ak verbe yoo xam ne day wax ci futur mooy ñetti temps yëpp lay tudd ci biir xasida gi mais temps bi nga xam ne moo dominé ci biir xasida bi mooy zamanul maadi mooy temps passé euh, looloo tax xasida bi nekk xasida bu dal n'est-ce pas parce que zamanul maadi la euh, day mel ni sax boo koy lii da ngay nekk devent ay ay ay fait ay xew-xew historique yoo xam ne daf koy nettaliwaat ba pare tëgg ko ci ay abyaat chanriya ir yi nga xam ne moom la utiliser mooy ay pronom personnel aussi tudd na damirul mutakallim lu bari mooy damiru kiy wax mooy pronom personnel léeg-léeg mu utiliser damirul xaayib mooy ku fi nekkul wala damirul muxaatab mooy koy waxal directement saa yu tudd damirul mutakallim boppam la ciy jublu n'est-ce moom moom sëriñ biy bind xasida gi euh, léeg-léeg mu tudd damirul xiyaab ba pare mu jëm ci moom maanaam muy wax ci muy wax ci kenn naan him fekk boppam la ci jublu comme ni mu ñëwee ci xatiaatuhu ay bàkkaaram anhum mahat set na wicc banda tawbatin ginnaaw ak tuub gu mu dellu ci borom fekk boppam lay boppam lay waxal euh, suñu utiliser dameerul khitab aussi di wax ak nit leg leg bopam la ci djublu comme ñoom ñewé ci ayaa xaadimal mukhtari la tam sa sax yow yow katub yonent bi hey bul fàtte ay sabam bopam lay waxal foofu fa man yan saxum fal mat xamat xon mu xattau leeg it mu utiliser dameerul khitab bo xamni yow may lire qasida bi wala yow mi kay dégg la ci waxal comme nim ñewé ci maqamatu khairil khalqi an ghairi rabbihi mughayyabatun fal taqra'an suratan suratan najmi utiliser na aussi ay utili ay damair yu bari léeg-léeg mu dellu ci euh, damair yoo xam ne day dellu ci ay noonam comme ni mu ñëwee ci afawtu anil aada turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu atfan wala mu dellu ci yonent yi la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaalu bikal ayaati min zi taqaddumi wala mu dellu ci saxaaba yi widaadi li rabbi wal muqabba wa xisbihi wa man xabbahum wallahu li kaana bil afi donc boo sukkandikoo ci damair yi ñëw ci biir xasida bi da lay permettre nga xam yan yan personnage ñoo teew ci biir xasida bi maanaam bu doon film yan acteur ñoo ci nekk donc ñetti personnage ñoo ci gën a siiw maanaam euh, ginnaaw yàlla dañ koy génn duñ ko mën considérer personnage ab yonentaam ak moom sëriñ bi teew na ci bu baax sahaba yi teew nañ ci ñim ci tudd seen tur ñeent lañ mooy aboubacar omar osman ali yonent yi aussi teew nañ ci kenn la ci tudd turam suma juumul muy seen maam di di di di aadama alayhi salaam bu dee nag li ñu tuddee tarkib balaax yi foofu sax nga gën a mën a defee différence entre langage bu simple ak lamba langage poétique pour mën a xam carrément yan beauté poétique moom la moom la xasiida bi amee mais xam naa loolu moom dama koy bàyyi ak jàngkatu luxa yi buñ demee surtout ci gëstu boobu dinañ ci mën a am lu dal seen xol donc euh, li ma def nii benn résumé bu modeste la ci benn étude boo xam ni en 2007 manke ngi won ci kulliyatul lugha al arabiyya université al karawiyin faculté de langue arabe bu Marrakech euh, ma amone mbekté mu bax ci préparer ben étude académique bu am rapport ak bindi Cheikhuna Ahmad Bamba tout simplement parce que malgré sama appartenance confrérique don taalibeb Seydina imam mais suñu borom comme ni ma ko ci introduction bi ubbina sama xol bëggaloo ma Cheikh Ahmad Bamba depuis sama ndaw ma daan liir lu baree bari ci ay bindam jariñu tamit lu baree bari bari ci ay xasidaam loo xam ni jàpp naa ni participer na bu baax ci sama éducation euh, may ñaan suñu borom mu fayal ko jullit ñëpp mais mu fayal ma kaman itam donc ci introduction ci euh, tëj li may fàttali rek mooy nasiha boo xam ne Seydina Limaamu joxoon nag joxe woon na ko mu ñëw ci xitaab boo xam ni mu ngi ko yónnee woon dëkk bu ñuy wax ngaa xam ay taalibeem nekkoon fa ak ay taalibe Cheikh Ahmad Bamba bis coow amoon ci seen diggante mu bind benn xitaab yónnee leen ko pour ñu dajale ñëpp liir ko ci seen kanam mu ngi ko tàmbalee sami'tu anna ba'dakum kaanu yataxaasamuna ma ixwaanikum alladina hum min talaamisi Cheikh Ahmad Bamba wa hum wa antum muslimun fa waajibun alaykum an takunu ixwaanan فالمؤمنون كلهم إخوة وليس في الإسلام عداوة وبغضاء ندقنا لن تيين دنيو دون خلو أك لن تالي أحمد بامبا تنيوم أك يين نيبا يم الجلين جين تاليوار كيسين ديجن تموين جين نكا أي أي دومين داي دك بس الإسلام نونو أموشي ميرو أسي أمو البلاس أمو البلاس كي الإسلام وحلين كل فليأخذ بسيده وملاده ويعمل بما أمر به ويقتري به في خلقه waaye aussi tamit di fàttali waxu Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ni waxoon na ni inna ak innama ku leen xam te jëfe leen doo mus a considérer jullit ci yow jullit ni yow doo ko mus a noonu ñu nekk inna mooy lan mu ne inna seytaane lakum adu mooy seytaane kese mooy seenam noonu te ku dul moom waroo leen ko xajal noonoo ko waroo leen ko xajal ci seen xol innama mooy lan mooy innamal muminuuna ixwa mooy jullit yépp ay bokk lañu jullit ñëpp ay bokk nag it's easier said than done parce que ci Nahju Qadaa'il Haaj euh, bi muy définir lan mooy dëgg-dëggi bokk da ngay sentir ne ñun kon niveau ba ñu rasulullahi bëggoon a yéeg ba léegi àgg gu ñu fa parce que dafa wax ni wal axu xaqan wal xaliilu sidqan andaru min kulli xaliilin xaqan nee na mbokk dëgg moo gën a jafe ci lépp lu raar ci àddina mu ne fa huwa alladi ka qawli man jalal xalak inna axaaka alxaqa man yasaa maak wa man yadurru nafsahu li yanfaak wa man ida raybu zamani saddaak shattata fika shamlahu li yajmaak qultu wa man yuxfi lxanaa li yarfaak nee na sa mbokk dëgg mooy ki nga xam ne day ànd ak yow ci say bëgg-bëgg wa man yadurru nafsahu li yanfa di lor boppam ngir nga jariñu mu ne waman isa rey bu zaman saddan mooy koo xam ne bu demee ba problème yi jamono tas la chattata fii ka chamlahu li yajmaak lépp lu mu am moom dina ko sacrifier pour dajale waat la xultu waman yox fi xanaa li yarfaak bu fekkee nag loolu moo war a dox sa diggante ak bépp jullit kon da gis ne niveau bi ñu war a àgg ba léegi àgg gu ñu fa parce que léeg-léeg ay différence ci wàllu tarixa kese <laughs> dañuy def ñu mel ne ay noon carrément noonoo boo xam ne warul am sax si diggante jullit ak ku dul jullit n'est-ce mm. euh, moo tax mu wax ne ku xam inna ak innama di ko jëfee doo musa noonu